yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala Paypal da ngay def 3w point seen affiche point comme nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 24 février ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekkati fay affiche am solo doomu dangu Jordan moo gën jàpp na le date le 15 ci atum waaye journal sunu lamb xëy ñëw di ñu xamal ne le 13 le 27 mars le trois dates di mooy am ci li nga xam ne moom moo di arène bi diggante Modou Lo ak ki nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé le mars ci atum la bataille royale diggante ki nga ne nii moom moo di Eumeu Sène ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier le 27 mars ci atum 2022 ki ñoom ñaar ñooñee day dañuy tàqalikoo mbaa keneen ki dolli morom ji waaye ba tey le 3 avril ci atum 2022 diggante Ama Neex ak ki nga xam ne nii moom moo di Lac Rose bi xëy di xamal ne day dix ans après waaye ba journalu sunu lamb xëy jàll ci nga xam ne la mu am ku nekk waaye ci kaw xam ne nii moom moo di Bulldozer la mu xam le ne moom moo di naa am li xam ne nii moom moo di bëre waaye itam mën naa am li nga xam ne moom moo di bagaar waaye ba tey journalu sunu lambu xëy jàll ci xëtum sunu lambu day fesal ba ki nga xam ne nii moom moo di mbay guy gi ci xët bu yaatoo yaato journalu sunu lambu yemul foofu jàll di ñu xamal ne inauguration stade Abdoulaye Wade Gris Bordeaux a na fa moom Balla Gaye do itam teewoon na fa Tapha Tine aussi naka noonu waaye foofee ca Djilor jaata Mbuur baat ki nga xam ne nii ba tey journalu sunu lambu xëy di ñu xamal ci gimi ki a xam ne nii moom moo di blende Batista numéro 2 journal dina ñëw ci moom revanche en lutte simple waaye ki a xam ne nii moom moo di bébé julde brise de mer numéro 2 mars ci atum 2022 journal bi xëy lu ni mel Pape Diagne Seras moom itam am na mbégte ci samedi bii ñu génn fi nga xam ne moom caare national journée wu Serigne Modou Niang waaye moom moo di bi xëy na ñëw caare national ci am ay journée yu am solo yoo xam ne taxawaloon na ko fa waaye ba bu ñu demee fi xam ne nii moom moo di sunu lamb journal bi dañu xamal jigaan arrivé en retard waaye bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jalgati lamb kañu fay fekk mooy ki nga xam ne nii moom moo di Zarko ko nga taxaw ci ay kanam day fas yéene jàpp bal la xam le moom moo di jeex na dootu amati waaye ki xam ne nii mbaw di mbay guy gi na xam ne fii moom jeex na lenn dootu fi amati lu dul ay ndam képp yéen ñi koy seetaan lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du nekkee ne bu ma topp waaye ku jooy dëpp le côté le kees xombal bambay altundangal maag sew kabak laañaar kër daama kër sayel ndulaak patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kol dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu si waat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lamb ak Baol TV ñu yendoog jàmm jërëjëf yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal dangay ngay def 3w point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan